ndaje bi waaw li ko waral mooy dañu bëggoon euh, ñun jàppale waa sali si lépp li nga xam ni euh, mi ngi si nu ñuy def pour euh, teg ay projet ñu fexe ba nit ñi xam fu ñuy jaar ba teg ay entreprise ba monter leen loolu daal la ñu bëggoon ñëw ànd si ak euh, population Saly yi ak cercle des sentinelles ndaxte loolu mooy lépp dëkk bi wax dëgg yàlla njàkkum ñàkkum liggéey bi euh, bari na fi te fi mu war a tàmbaliwee mooy ñu fexe ba nit ñi xam nu ñuy def ngir euh, mettre en place lu toll ni ay projet ay entreprise ak yoy buñu paré ñu dem ci yenen projet nak yo xamni euh nu ñuy def ba euh suñu fruits et légumes nous transformé ba euh, transformer leen di leen euh, jaay Sali. Il y a des produits locaux yi tamit loolu jigéen mais nous leen ba organiser Euh, nous ñu créer des GIE ak ba Les Bir, hôtel hôtel bari bu Sénégal euh, Sénégal fii la ñu ñëw biir Saly moom mooy 75 pour cent si Toubab fii la ñëw biir sali donc ay téeméeri téeméeri junni junni junni nit la ñu ñoo xam ñooy ñëw fii. Euh, nga yokk si séminaire yi sénégal yi jógee dakaar di ñëw fii waaw dëgg yàlla képp ki nga xam mi ngi yëngatu si wàllum euh, jaay transformé artisanat yooyu yëpp waruloon mën a taxaw war leen ma ko war leen ko mën a jaay fii si biir euh, dëkk bi si biir hôtel yi loolu moo ñu waral tey ñu ñëw première étape bi. fexe ba jàngal nit ñi nu ñuy créer wee projet waaw loolu loo xam ne nag jaaxal nañu torop ajana bu ndaw la ajana bu ndaw la ndaxte defe naa dëkk la boo xam ni euh, président Sénégal yëpp defe naa am neen fi kër ñu si bari bokk ministre yëpp defe naa am neen fi kër borom xaalis yëpp Sénégal am neen fi kër kon nak dafa am contraste bu fi nek mooy dafa am nit ñu am ñu bari ño xam duñ sax yëg li xew fii si biir Saly si hôtel ak seen kër yu lañuy yi duñ xam li xew ci biir mais bo duggé tuuti ci biir dëkk bi nga xam ne euh, sali euh, ñakum liggéey bi mi ngi fi Saly ba légui nit ñi dañuy euh, dem di roti ndox lolu boko waxé sax si yenn bërepp duñ la gëm bo demee Dakar di ko fa duñ la gëm ak yeneen ak yeneen ñakum électricité ak ñakum kaaraange ak yoy yépp lolu mom jaaxal nañu ñàkkam organisation rek moo ko waral moo dëgg yàlla bu ñu organiser nit ñi fexe ba waxtaan ak hôtel yi waxtaan ak partenaires yi loo xam ni chômage moom ñàkkum liggéey moom waru fi mën a am ñun nag am nañ ay idées yu bari pour waxtaan ak euh, ay partenaires waxtaan ak ay nit ñu ñëw fii euh, di fi investir hôtel yi nangu ñëw jënd fi ay produits yoo xam ni fii la leen di transformer qualité la loolu yëpp dañ leen di accompagner si loolu bu ko defee chômage bi ak ñàkk bi nekk fii si biir sali dootul amati contraste bi ñu fiy gis ba léegi muy indi insécurité parce que fu nit ñu bari xaalis dëkk ak nit ñu ñàkk torop dëkk bu amee rek day am insécurité te loolu moo tax ñuy commencé di dégg yu bari fii si biir sali kon nag euh, li nga wax jaaxal nañ torop mais am nañ pexe pour fexe ba loolu dañ fi mi ngi si suñu biir projet loolu lañu bëgg a ñëw présenter dëkk bi pour bu ñuy dem inshallah ci élection yi waaw cercle des sentinelles nak ay wax naa ay jambar lañu ñoo xamni ne nañ torop depuis ñom la woon ak euh, sam papa déjà ensuite ñom la woon euh, ak man et dafa nek ay nit ñoo xam dañoo farlu torop ci lepp li nga xamni moy euh, créer entreprise ak yoyu dañ koy def du Dakar kese mais fep ci biir Sénégal ki Kédougou fep dem nañ fa ak seen i ay experts yi nga xam Dakar la ñu jóge ñii jóge ba étranger ñeu pour jàngal euh jàngal nit ñi nu ñuy def si ay projets spécifiques ci ay séminaires spécifiques nu ñuy def pour nit ñi mëna euh jàng yenn yenn yitte yi nii. loolu nag moo euh, ñu nangu and ak man accompagner ma tey ma laaj leen ñu jàppale ma si jàngal nit ñi nu ñuy def pour créer entreprise beneen yoon dinañ set fruits et légumes ak yoyu Euh, beneen yoon mën nañ dem sax euh, ba si wàllum santé ñëpp ñi nga xam ne bëgg neen euh, xool si wàllum parce que santé moom ñëpp ko soxla ñu fexe ba nit ñi jóge fi ñu war a jóge à l'extérieur ñëw ba fii joxe séminaire si wàllum santé donc ñoo xam ni daal wax dëgg yàlla mënuma leen fay maa ngi leen di sant di leen gërëm e di ñaan yàlla ñu continuer nii si projet yu mel ni ay séminaire yu mel ni yu bari incha allah